lii doon suñu cinquième wala sixième édition wu euh, safar bu ñu tàmbaleeg léegi. di liggéeyandoo benn liggéey xamewuñ ci xaj ak seen amul tijaan amul julit amul katolik lenn moo ñu ñor mooy ànd jëm ci benn direction. mën nañ ni la y a cela six wala sept ans bi ñu commencé léegi suñu safar gi ñu ngi commencé woon ci benn basang ak quinze mille francs su ma juumul. ba tey ji macha allah dañoo dem ba am nañ budget wu dañ dem nañ ba ci dugal budget wu 3 millions 500 francs a vrai dire ci luñ mën a calculer bokkul ak dépense yi nga xam ne day ñëwee de euh, d'ici et d'ailleurs. tool ñi amuñu benn bonne volonté buy jógee fële indi gros grosse une grosse somme teg ko suñu loxo suñu ay déem ak suñu Dakar la boole ak suñu système bu ñuy liggéeyee lépp ci organisation la quoi kii day indi jëfam joxe kii indi jëfam joxe. am ay carte barkeelu dañ koy defar un mois avant du xoola du préparation boo xam ne ay année la non non non ci benn weer lañ koy lañ lañ koy euh, dajale. ci euh, ci añ bi taal nañu 15 mbana ak benn mbana ak ñaari mbana soos reer bi fas yéene na teg 6 mbana tufe incha allahu rabbi musul ñoo toog ba mu manqué añ wala musul ñoo toog ba mu manqué reer. ku ñëw di nga xewlu ba man sëkk macha allah message mooy euh, di wax ni ñun on est des jeunes yoo xamante ni dañoo ñëw rien que pour liggéey et on est là que pour la population thiessoise en particulier mais pour le Sénégal tout entier parce que ñun suñu oto yi ñu yor ci lañ yor suñu ay kër mais ci lañ def social bi ñuy dimbalee ku bokkul ci ñun je précise et je pèse bien mes mots ku bokkul ci ñun dañ koy dimbali boobu bu ñu waxantee dëgg. te ñun suñu système bi ñu yor mooy servir ki ñu wax ni dama loué ji ambulance te amul 60 mille yu mu fay ambulance ci ñun ngay ñëw fay 5000 francs yóbbu la hôpital principal ci ñun ngay ñëw am mission boo war a réglé ci une heure de temps ñu yóbbu la Dakar sans ci suñu ay projet dinañ dem ba di ko safar ba suuru màggal. ndax biñ koy soog commencé ñu ngi dem ay 30 ginaar 50 ñu am ay 3 mbana yooyu di góor góor ñuy dem bay teg fukki mbana ak juróom ceeb xam nga ñu loolu lu ñu bu teg reer ay juróomi ren mën a petit pas loolu du lu ndaw ñi ngi ñaan yàlla daal muy gën a yokk ñuy gën a am ay nag ndax ren ñi ngi yeew ñetti nag bëgg na bu déwénee ñuy yeew ñeent ba juróom nag incha allah jigéen moom yombul moom mais yow yaa leen comprendre ndax yow yaa jiite ndax buñu jëlee lépp teg ko sa in il faut nango nangoo muñ tëddee ñaaxaan naay lu la waaye def nga muñ ko lu manqué nga mottali man loolu laa xam ak jànkat yi ay ñoom Cheikh Mbaye ñoom soxna ak Nogoy Gueye ñoom Mor Massam ñu ngi leen di xaar leen dëng ñaanal yàlla fanaanee cant incha allah loolu daal la ñu bëgg waaw tey lay yem ndax démb la commencé woon démb ak tey la tey lay yem tey lay yem macha allah kontaan nañ borom café Touba gi lay segg café gi maanaam bi ngi presque ba safar commencé ba léegi maanaam ñeenti at ñu ko def yëpp maa ngi koy bërëg heure bu bërëb bi ñëwee li defal bërëb bu mel ni may defal lu si mel ni barrière lañ may tegal ndax li may café moo jaarul ci Thiès damay kafe ba café ba toog ba Thiès toog xam nga tax ci loxo bi la damay café daf tamit koy café fii noonu laa koy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh sama secrétaire a ngi nii te ma pare li li ma manqué mën na koo wax waaye man damay santaat moom Mohamed mi nga xam ne nii moom la yàlla jox lépp waaw ah, ki nuy liggéey di mag ñu baax ñi Sénégal amuñu seen fay yàlla rek moom am seen pay di leen santaat yéen ñi nga xam ne sax da ngeen a ñëw teew yéen da ngeen a bokk ci sabar gi tey ndax ñëw gii ngeen ñëw di jël message yi mënuñu leen cee xanaa nu boole leen nag kenn bëgg mu fay nu muy Xaadim Rasuul rek mu fay nu ñun ñëpp vraiment defal ngeen ñu tey cër bu rafet a rafet a